son de son jëy naa Baldé ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax euh, gré xam nga yow lu ne yaa ciy dugg euh, da nga bëgg ay cas bëgg ay détails bëgg ay affaire euh, donc duma la ci bàyyi ah maa ngi la ci gërëm sax déjà ndaxte boo ko ci dugalul woon sax duma ci wax ah li ñuy wax rek nii à chaque fois on est des jeunes ah, message la par rapport ak ñun ñëpp ah képp kuy jeune koo xam ni ndaw nga nekk ci sa yoon nekk di dawal nekk sax étudiant nekk élève nekk ak loo mën a doon ngi lay soññaat ci nga gën a rapprocher sa famille parce que famille mooy base la famille c'est la base de toute une chose quoi gis nga boo nekkee xale del déglu ay mag ñu lay conseiller ak di la wax ni ngay tegee sa tànk defeel nii kii ak nii parce que booy seet xale yi dëkk ak mag ñi ñu ci bare du ñu réer mais une fois que tu euh, nga nga nga dëkk feneen wala nga nekk ak keneen rek euh, euh, day indi lu bari donc gën leen ngeen jege sunu ay yaay jëm leen ngeen jege sunu ay papa te di déglu seen ay conseils donc li dal tey suma sœur bi di Dieyna neexul kenn te kenn yéenewu ko ko waaye mënoon na maa dal mënoon naa dal keneen ak keneen ci ñun de xale yëfu lépp lépp yëfu xale la euh, tey amaana am na mag bu nekkoon ci wetam euh, bu doon jéem a dugg ci lii ba laaj ko ko dina ko lii ak lii boo ci duggee lii mën na la cee fekk kon nag gën leen geen rapproché ci suñu ay jur gën leen geen di rapproché ci ñi nga xamante ni ils sont non aînés donc ñooñu ñoo leen mën a wax fii ngay jaar lii ngay def ak fii ngay teg sa tànk waaye bu fekkee da ngay dem ak sa xel kase euh, doonub xale lu bare mën na la réer et puis méfiez-vous des des des des des qu'est-ce que comment est-ce que je peux l'expliquer méfiez-vous ci ànd àndu xale tey boo amee yenn âge mën nga toll ci âge de la puberté ci sa avenir ci la mën a defaroo euh, ci la mën a yàqoo donc veillez à ce que euh, ngeen di ngeen di jege ay mag bu fekkee ne da ngeen toll ci âge yi ni mel c'est-à-dire yéen ñi am 15 14 13 12 17 18 ans. moytu leen lu bari bari bari bari euh, di ci di di di waxtaan ak seen ay xarit ñu leen di dugal ci ay tuuxi doona ba tax na ku ci jege sa yaay ku ne rek doo doo ku ci jege sa papa doo réer ku ci jege sa mag wala sa koo xam ni umpaañ wala nijaay la rek doo donc méfiez-vous de tout cela bañ a def ci seen bopp ni ay mag ngeen parce que boo tollee ci yenn âge yi tu as 17 tu as 16 tu as 18 ans tu te dis que man léegi mag la bu dee xale bu jigéen da ngay commencer am ween sax am nga taat donc tu te dis que voilà maintenant man mag la bu jëmm laa lu ma neex def alors que tel n'est pas le cas des fois euh, boo obésé wala nga am yaram tuuti da ngay jàpp ni mag nga alors sa âge yeegul foofu bu dee góor nga aussi sa cër mag na gis nga ni yaag papa tey tolloo ngeen rek da nga naan léegi mag laa commencé tox wala commencé naan na méfier wu ci yooyu noonu yu bari rek mooy indi euh, ay tooxi doona ëllëg donc c'est un message par rapport ak sama jeunesse jeunesse de ma nation euh, Grégoire yaa ma ci dugal waaye kon xamoon nga ni duma ci wax vu que les idées de Kheucha existent message de bu ma doon lancé par rapport à ça